maaleykum Sénégal maa ngi leen di siyaar bu baax di leen bëgg di leen jaajëfoo kan nekk xam na ne euh, projet de loi bi nga xamante ne suba war nañ ko voter assemblée d'après Dame Mbodj faaw parti au pouvoir am 99 comme te ñoom 82 la ñu ngalawaay yéen ñeneen ñi nga xamante ne peut-être nekkee ci opposition bi ba leen voter bi parce que. ak président waroo toog saa yaka hera mu asam assemblée nationale logo amul so am Sénégal donc yeen député yi yi nga xamantene ne bok ci benen parti féete ci opposition bi am len ngor te bañ trahir askan wi len votalon ba ngeen nek tay ay député am len ngor ngeen bañ trahir askan bi sino rek di ngeen ke regretter sino di ngeen ke regretter fa laa yem nag